ci dëgg danañ ko danañ ko waxante boo ko bëggut dama lay bàyyi wax naa sax ne xarit bu ma am sax ngay defeyaan bala ñoo sori sax yàlla yàq yàq suñu diggante nga dem ma dem parce que defeyaan du ma ànd ak moom waaw xam nga loo lu bari sàggante la sàggante sàggan baaxut sàggan nañ koy moytu ci mag ñi ak gone yi tey xale li ko war digganteem ak waajuram na ko def waajur li war digganteem ak doomam na ko def waaw man fii may wax ak yow dinaa la wax tey dëgg boo xam ne du ma ko wax maa ngi ak doom joo xam ne mi ngi ci douze ans man bi ma ko yaayam di indil deux ans la am parce que dañ doon say tàggoo mu indil ma doom ji ma ne ko kii de tuuti na tee nga koo yóbbu jim koo gérer booba mere na ma ba mu xaw a dëgër nga indi ko parce que fi mu ne nii ma ko joxee nii xale la munu munu ma ko munu ma ko munu ma sang munu ma ko kuus munu ma ko def dara mu ma sa doom a ngi nii bu fekkente ne que daal bëgg nga nga nga téye boo bëggul yaa xam ma jël xale bi dénk ko sama mag fi mu ne nii mi ngi ci 12 ans 10 ans ngi nii yaayam gisu ko waaw est-ce que dégg nga bu baax li ma la wax fës fukki at a ngi nii déplacé wul seet doomam. fi mu ne nii bu gisoon doomam du ko xàmmee man laa wax de waxuma la jëluma benn référence de sama mbir laa lay wax man la waaw dix ans ngi ni yaayam gisul doomam waa léegi xale boobu tey bu demoon ba nekk tey star wala mu dem ba nekk tey milliardaire wala mu dem ba nekk tey nangam wala nangam bu yaayam ñëwee ban ban wala mu dégg muy takk jabar bu yaayam dee woote ci site di wax lu muy wax waa man bu ma koy tontu nan lay demee sàggante nañ ko ma te ndeyam wa demul Amérique demul Espagne demul États-Unis xool mi ngi ndakaaru gi mi ngi Dakar gi te li ma lay nii Thiès la aller-retour bi matul ju ñi dix mille doomam jarul la ko déplacé pourtant booy bi fi ni nii dans neuf ans dans dix ans mu takk jabar est-ce que danañ koy yëgal kenn xamul sax ndeyam nañu xoolal mi ngi Dakar bu ñu fontoo nit ñi bu ñu fonto nit ñi nañuy def dëgg di wax dëgg di soor suba lépp loo mën a def ci àdduna te sóoroo ci suba billahi wallahi taalaahi da nga ko rëccu te bu gaaw nga koy rëccu parce que am daa gaaw ñàkk gaaw deegi gaaw lépp gaaw kon looy def rek du dëgg bàyyil gaaw bal non non non teguma ko ci kenn dama ne sàggante baaxut dama laa jox misaal ni la sàggante baaxut parce que dégg naa histoire comme ni ko ñëpp déggee à l'âge de six mois à l'âge de nangam gëj nañoo gise yooyu laa la wax li koy waral loolu laa wax ni waaw waaw li koy waral laala wax ni sàggante ak néewal ak garaaw danaa bés tàngam ak waaj li ko jar na ko jar nga def ko léegi bala la ci ay ay bala ñu la cee bu ko jaree rek dama nga def ko mu jar ko parce que doom nawle la te doom mag ñi daan nañu wax naan duul wuy sooy jër jërta naxee démb parce que xale day màgg day jékki-jékki doon ponkal te Cheikh Ibra nee na doom yi nga xamante ni ñu leen di tuddee doom yu dul doom yi yoon nee na li leen di tax am wërsëg ndax xam ngeen ko ñu ne ko déedéet faal mu ne fekk gi seen ndey di fekk seen baay dong ko waral nangu mu ne nangu googu rek moo ko waral nongu dafa baax jigéen ñi sëy ñu ci bari seen dépense mat na ñi ngi tëdd appartement bu baax ñi ngi taal clim ñi ngi am ay oto mais ay wéyu la ñuy jur ak i naankates ak ak ñuy ñuy volé nangu wuñu nangu wuñu naturelul sëy bi naturelul il faut ñuy xam ne ñun dafa am lu ñu yàlla cërale ay doomu aadama la ñuy def loolu loolu yàlla rek sama